toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias xibaaru ngoon gi li ci gën a fës ab tiis ci meeting de clôture bu Maître Aïssata Tall Sall ak coalition Osez l'Avenir benn ndaw moo ci ñàkk bakkanam moom nag mi ngi doon wuyoo ci turu Abou euh, Ba courant moo ko maas mu daal di wuyu ji euh, boromam suñu ay ndaw demal nañu nag euh, ca seen kër fekk fa tantam mu mel na njàkkare ak tiis moo fa gën a fës coalition Manko taxaw wu Sénégal moom li mu xamle moo di ne euh, du ñu nangu mukk ñuy wooteek yeneen i kayit daal lu dul carte d'identité biométrique maanaam carte d'identité yu bees yi loole nag Déthié Fall moo ko xam leen njiitu réew mi euh, doxalinam ak conseil constitutionnel lu ñëpp euh, war a ñaawlu la di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi assemblée nationale moo waroon a addu ci demande bu njiitu réew mi laata muy yegg si ca conseil constitutionnel waaye nag moom njiitu réew mi président Macky Sall mbir mi ca pencum ndawi réew ma dem directement ca conseil constitutionnel loolee Moustapha Diakhaté ne dara euh, newu ci ndax moom njiitu réew mi na boobule euh, sañ nag moom ñaawlu ko lool jàpp ne sax ne moom njiitu mi dafa bëgg jox conseil constitutionnel ay cër yoo xamante ne daal euh, amagu ko ndawi askan wi moom te jamono jooju lu mu xamle moo di ne comme pexe amul nangu rek proposition bi nga xamante ne moom la njiitu réew mi joxe maanaam woote ak sa récépissé wala bokk ak carte d'identité yu njëkk li ci mën itam ñoom li ñu bëgg moo di wote yi jaar ci yoon daal itam ah, ci ah, dal suñu ay rubrique ah, la campagne bi ak moi député waaye itam sénégalais lambda ak campagne loole yëpp di ngeen ko am ci biir xibaar yi mbokk yi ponk yangook nes tuut ñu yaatal ko dellu di leen nuyu di leen dalal jàmm ci xibaaru uh, ngoon gi ab tiis lañu koy dooree benn ndaw bu ñàkk bakkanam ci uh, meeting de clôture bu Maître Aïssata Tall Sall ak coalition Osez l'Avenir moom nag mu ngi doon uh, wuyoo ci turu abu Ba ñu gën ko xamee ci Baba Galle courant moo ko maas mu daal di wuy ji boromam suñu ay ndaw nag tey ji ci suba dem nañ seen kër fekk fay mbokkam mu mel na naqar ak tiis moom moo fa gën a fës ñu ànd ceek Alassane Ba lu yàlla dogal kenn mu mënu ci dara xale bi ñoo ko yar bi mu amee à l'âge de dix ans la ñëw ci ñun jóge boy naa ji dans la région de Matam biig nag tëdd nañu ba ay vers une heure du matin sama frair woo ma ni ma ndax tëdd ngeen ma ne ko waa tëdd nañu mu ni ma Baba Galle de xaw ma fu mu demoon ci meeting yi mais courant bi maas na ko dee na ma ne ko kuy Baba Galle mu ne ma Baba Galle mel ni ñu xam ma daw génne informe waa kër gi ñu daw wutale dispensaire mais bala ñuy egg far ñu yóbbu ko morgue ñu ñëwaat fii ci kër gi mais comme ñaari meeting moo amoon moom meeting meetingu Oser l'avenir la demoon ñaari meeting yëpp bi ñu tasee vraiment suñu kër lañu lañu la ñu wàll si ñoom ñëpp presque ba 3 heures du matin kër gaa ngi fees dell ak nit waaw mi ngi am 28 ans 28 ans la am ñaar fukki at ak juróom-ñett bi affaire bi amee BMS moo njëkk a ñëw ñëw def enquête gendarmerie aussi woo nañu ci guddi gi bu ñu xëyee buñ ko laal ndax dañuy mu ne ay enquête yu ñuy def ci moom. pikin la ñu jëm ndax jiital jëwriñ yi di Mohamed Boun Abdallah Dionne doon amal ab ndaje mu soxal ba tey campagne bi foofe ca banlieue bu Ndakaaru waaye pikin moom da ko mujj tëb dem moom Mohamed Boun Abdallah Dionne ndax xiiroog ŋaayoo gi ñu fa nemmeeku Salif Sow di suñu ndaw mi ñu fa teewal mi ngi ci buumu jokkoo gi Salif mag ngi lay nuyu allo Salif Sow. Salif Sow mu mel na euh, dégguma Salif Sow maa ngi lay nuyu. mu ngoog Salif Sow mu mel na dégguñu waaye du ñàkk ngeen dégg ko ci biir xibaar yi ni ñu ko waxee woon ci euh, titre yi coalition euh, Manko taxaw Sénégal ñoom dañoo lank ba tëdd ci suuf ne duñu nangu kenn di wooteek euh, beneen këyit bu dul carte d'identité biométrique bi ñu ne récépissé yeeg carte yu njëkk yi ñuy wax yépp ñoom ànd ñu ci Déthié ñaaw lu lool doxalinu njiitu réew mi mu dem ca conseil constitutionnel sàkku rek ñu may ko mu mën jox ndigal sénégalais ne loolee euh, du fi amee dañ ci ànd ak euh, Massiré Sarr Diafara Ba conseil constitutionnel jël ndogalam coalition Manko Taxawu Sénégal ànduñu si li doy waa rek mooy conseil constitutionnel nga xam ni tey warul woon joxe décision ci lii nga xam ni du matière contentieuse du litige avis rek la ci waroon joxe te avis boobu waxul ndax décret la waxul ndax loi la tey jii nii ñuy permettre président de la république muy jalgati yoon bay indi sénégalais yi ñuy voté n'importe quel document à la limite ci démocratie bu mag bu mel ne démocratie bu Sénégal nga xam ni am nañu expérience am nañu expertise ci ay organisation élection depuis 1848 ñoo ngi koy def. Déthié Fall di si yokk ne ministère de l' intérieur dafa war a jox citoyen yi seeni ay carte six millions deux cent cinquante mille sénégalais yi nga xam ne ñoo bindu nañu jot seen ay carte bu ko defee ñu dem exprimer seen devoir citoyen comme ni mu waree xaaruñu leen du dul loolu li nga xam ne aussi mën ñu ko nangu mooy incompétence su Abdoulaye Daouda Diallo plongé sunu démocratie fi nga xamee ni tey jii nii danoo war jalgati yoon yëpp di demander sénégalais yi nga xam ni ñoom yoon la ñu bëgg te jii nii ñuy utiliser carte bu mel carte bu nekk pour mën a voter. coalition Manko taxawu Sénégal ñoom ne leen rek la ñu bëgg. askan bi woteek seen di d'identité biométrique CEDEAO bëgguñu Sénégalais yi voté lu dul carte d'électeur couplé ak di d'identité nationale ndaxte loolu moo nekk ci loi électorale bi il faut que ñuy sàmmonteeg li nga xam ni moom la ñuy bind ci suñu teg si sàmmonteeg loolu moo tax tey jii nii président de la république Macky Sall doon président de tous les sénégalais et moom mooy gardien de la constitution moo war veiller à ce que li nga xam ni moo nekk ci texte yi nit ñi di ko sàmmonteel. loolu moo ñaaw te ñu koy ñaawlu te mënuñu ko nangu ñun de Manko Taxawu Sénégal. laata ñu yegg dimanche bésu élection yi coalition Manko Taxawu Sénégal ne dinañu daje ngir xool nan la ñuy def ak boobule avis. moom président Macky Sall nag mbir yi da ko waroon a yóbbu ca assemblée nationale ba noppi laata mu yegg si ca conseil constitutionnel waaye defee ko noonu Moustapha Diakhaté euh, bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ne loolu dara newu ci ndax moom jiitu réew mi am na boobulee euh, sañ-sañ Thierno Bokk moom ñaawlu na ko lool ne euh, conseil constitutionnel sax warutoon na addu ci mbir mi dañ ci ànd ak Fatou Bintou Conté. décision bi conseil constitutionnel jël ne bépp citoyen mun na voter ak yeneen jumtuwaay bu weesuwut li nga xam ne moom mooy carte biométrique te nag bi la décision jaarul assemblée nationale Moustapha Diakhaté jàpp ne loolu lu mën a nekk la président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ba woon ci assemblée nationale jàpp na ne décision bi mën na nekk ci kaw loi. mën na ñëw assemblée nationale waaye nag bu ñu fàttali ne assemblée nationale amul nekkul euh, nekk na hors session bi ci des mooy pour mu nga def ko il faut assemblée bi daje bureau assemblée daje conférence des présidents dajee ñëw de woote commission def plénière loolu xajut ci semaine bu mujj ci campagne électorale donc kon président de la li mu def bañ a ñëw assemblée nationale mooy li gën wala pour mu mënoon ko def il faudrait que ñu décaler élection yi maanaam dàq ko fukki fan juróom lam tuuti tuuti te loolu moom ci boppam bëgg ko woon bëggul woon woon ci da na mu tuddee élection yi nit tànk nag day tàlli woon ci assemblée il fallait élection légal na parce que bu légal woon conseil constitutionnel du ci dugal loo xam te conseil constitutionnel bu xasee décidé décision boobu day nekk day moog droit moog loi ñoo yem ak ci ci ci ci pouvoir public yi. lu jaaxal loolu kii di Thierno Bocoum moom mi nag jàpp ne ne njiitum réew mi jamono ji ma nga yokkal doole ñi nga xam ne ñoom ñooy waa conseil constitutionnel ngir ëllëg moom mu leen utiliser ci beneen yoon. na gis na njiitum réew mi euh, mbirum jël loi lu nga war ko modifier. mu jaar assemble nationale loolu dafa leer nañ amul lu ñu siy interprété loolu ñëpp xam nañ ne waa assemblée nationale moo lañ koy wootee loolu sénégalais bu ne xam na ko président rawatina nag président de la république mais lu ñu gis si mbir mi ma président de la république dafay yokk doole conseil constitutionnel daf ko renforcer lu mu si jublu nag xamuñu ko parce que li ñu seetlu boobu ba léegi mooy lu mu bëgg rek conseil constitutionnel defal na ko ko tey fii ñu toll lu mu bëgg mbir mi lu mu tekki mooy conseil constitutionnel ci boppam am na possibilité di defar ay loi yu bees te du jaar assemblée nationale. parce que avis bii mu génne ñu ne avis bi amul recours amul dara day imposer wu ci ñëpp ça veut dire que suba mën na génne avis bu ko neex ne président na yokk mandat ne président na def trois mandats quatre mandats wax président lu ko neex te loolu mënuñu ko nangu parce que. Moustapha di ñu xamal ni bile décision. njiitum réew mi da ko jël rek ngir réparer li nga xam ne moo di injustice. li nga xam ne dañ leen naroon a xañ seeni sañ-sañ te càggante gi jóge ci waa daf ñu delloo leen seen ak defe naa loolu moom wax dëgg yàlla coow waru ci am nit ñëpp ci war a bëgg mën naa bu élection yi jàllee nag ñu xool naka lañu war a jubante yëf yi ba wote euh, gën a mën a yomb ci Sénégal parce que na wax dëgg yàlla jafe na trop waaye. loolu nag. mënoo ko contrôler su dee yow da nga bëgg si ñaari fan nga bëgg a defar ñu amul woon loolu yëpp kayit yooyu ñu laaj nga bëggal defal leen ay immatriculation mais woon si carte mu génn dañu waroon yokk production bi fexe ba carte yi ñi ñuy jot si yaatal commission yi mais dañu préféré jub bàyyi loolu jublu léegi si ay defar ay këyit yoo xam ne ñoo koy defar ku leen neex jox ko ku leen neex loolu jaaduwul normalul te nag ñu dañu am tradition de vote boo xamante ne ne dañu xeex ba yegg si transparence si vote bi te suñu bëggee dellu si situation boo xam ne këyit boo këyitu suukar bu ñu la defaral rek ñëw indi nga wote je pense que loolu euh, fraude bu mag a a mag lañ nekk di préparer coalition Ndayu Askan Wi moom it eh, ñaawlu na li nga xamante ne moom moo xew maanaam conseil constitutionnel mi nangul njiitu réew mi lu mu bëggoon ne ku nekk mën ngaa wooteek sa récépissé wala carte yu njëkk yi waaye coalition eh, boobulee li mu ci tekk moo di ne eh, comme loolu am na mënuñu lu dul nangu loole ñaan nag élection yi am ci dal waaye itam am ñu teg ko fu leer ba kenn du ci loru buuba Diop dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Faty Dieng Younous du waru garam dañu ko laaj moom yemul ci tontu rekk li mu tontu ak li mu ci dugal sukkandiwul ci lu yoon tëral ñun de dinañu laaj ñi ñuy toogal bisu tànn bi ñi toogal ci bureau yi ñu def li yoon maye loolu la leen di ñaan lii am nag baaxul dina tax ñi nga xam ni mbir mi sooxla leen te bare ñu toog seen kër am na ñu ragal fitna ñoom itam daañu toog seen kër ger ak xaalis dina tuur maître Abdoulaye Tine moom it li mu xamle moo di ni le conseil constitutionnel def ëpp na ba tax na jàpp nañu sax ne ab loolu euh, suñu démocratie dafa daal di dellu ginnaaw euh, ñoom nag fasuñu yéene euh, des fii ndax bëgg nañu yóbbu mbir mi ca cour de justice bu CEDEAO ngir rek ñu daal di niilal boobule dogal dañ ci ànd ak Cheikh Hassana Fall Ba xalaat gi conseil constitutionnel joxe ginnaaw ba ko ko njiitu réew mi laajee nekk na loo xam ne jaaxal na président union sociale libérale pour moom mi bi la nekkatul ci liggéeyam. dama doon xaar ci juge conseil constitutionnel yi ñu wax droit c'est-à-dire wax lu yoon wax mais boo xoolee conseil constitutionnel décision bu ñu joxe maanaam dañu dépasser lu leen yoon may. parce que tey conseil constitutionnel wax na lu muy wax mais conseil constitutionnel est-ce que décision moo ëpp gëdd loi électorale bi nga xam ne wu ñu ko mu ngi fi. bile avocat jàpp ne bile décision nekk na loo xam ne mën naa tilimal sunu démocratie. tey nii may wax ak yow ñëpp xam nañ ne dëkk bi parewul pour élection ñu bëri jotuñu seen carte mënoo ñëw ne da ngay wax askan bi ñu tànn ñu koy représenté alors que ñëpp ñu ci war a participer nekkuñu ci condition yi. ngir neenal avis bi conseil constitutionnel joxe maître Abdoulaye Tine xam la ne dina yóbbu mbir mi ci cour de justice bu waa CEDEAO. dañuy faral di wax Sénégal. que conseil constitutionnel mooy gardien de la constitution wante kan mooy gardien wu gardien yi. moo tax ñu bëgg a yóbbu mbir mi ci cour de justice CEDEAO wax cour bi que Sénégal ci boppam violé na textes internationaux yi nga xam ne yéen a yor garanti bi. parti bi di union sociale libéral bokkul ci jongante législative yu fanweeri fan ci weeru juillet bi waaye teewul ñuy ñaawlu. doxalinu conseil constitutionnel bi te yaakaar ci haute cour de justice bu waa CEDEAO ngir mën a niilal treizième législature bii ti waaj a ñëw tey waaja toog ci assemblée ba Sana Fall ñu di ko jaajëfal ñu wax ci kuréel gi ëmb euh, sénégalais yu amee euh, laago ñoom nag bu weesoo seen récépissé bëgg nañ ci boole seen carte d'égalité des chances ngir rek mu gën leen a yombalal wote gi ndax dañoo seetlu ne saa yu ñu yegsee ci ay wote ay jafe-jafe dëgg moom la ñuy jànkonteel ngir mën a ñoom it sàmmoon teg seen i ak ak yelleef dañ ci ànd ak Pape Farañik Pape Fara Ñing mu mel na euh, yembut di ñàkk ngeen dégg ko euh, si suñu neen jotaay xibaar ñu wax ci directeur exécutif bu ONG trois d euh, moom it ñaawlu na ñàkk déggo manque de consensus bi mu jàpp ne moom moo am ba ñu yegg si ci cour ci conseil constitutionnel mi jox njiitu réew mi rek sañ-sañ mu mën a wax nit ñi ne mën nañu wote ak seen i wala bokk seeni i carte yu njëkk loolee mu ne ñàkk waxtaan moom moo ko indi moom mu njaay Cissé dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Aminata Mbaré Sow élection représentative euh, démocratie représentative plus ñuy voté gën a bari plus ñi ñuy toogal ci pencum ndaw bi réew mi gën a am légitimité donc mënuñu woon dem ci élection avec ay fu 6 millions 500 inscrits nekk ñuy voté avec ay 3 millions de de d'électeurs loolu da doon indi jiixi jaaxa xëy na peut yoon bi moo indi problème mais ñun dañu mës a exiger que sénégalais bu am sa def li nga war a def ba am récépissé war a mun a voter dañ war a xool solution. li ñu doon gënaloon moo doon mu am consensus ci mbir mi. mais voilà malheureusement maintenant bi ñuy waxee ne war nañ voter aussi mun nañu war a voter avec euh, euh, récépissé dafa waroon am lu ñuy wax ay mesures d'accompagnement maanaam yu mu waroon àndal. bokkoon na ci ci mesure d'accompagnement yi te loolu ba léegi war na mu nekk ñu jël photo ñi ñi eh, ñi nga xam ne parce que photo yi mu ngi ci déjà fichier bi képp ko inscrire photo waale nañ la ñu jël eh, ñi nga xam ne dañ ñëwoon eh, inscrire ñu jël seeni photo ñi nga xam ne mooy primo inscrire maanaam ñi nga xam ne ñu ngi soog a inscrire loolu fa la problème bi nekk ñooñu ñoo amagul carte ñoo mosul am carte ñoo mosul am carte électeur mooy ñi nga xam ne ñu ngi judd 99 récépissé yooyu ñu wax sax ngir nga mën a woteek moom faw am yeneen i kayit yu koy euh, gunge bu ñu sukkandikoo ci ki yor euh, kàdduk direction euh, générale des élections moom nag daal dina ñëwaat ci naka ngay def rek ba jot ci yooyu les kayit moom Bernard Casimir moo nekkoon ganub xibaaru benn waxtu ganub xibaaru diggu bëccëg yi dañu koy teewlu ak Chérif Dia. document d'immatriculation dafa di boo xam ne daaf yàgg na di ko joxe. ñii ñëw di bët ut si carte d'identité wala ñii ut si passeport léeg-léeg nga bëgg am sa passeport fekk sa carte d'identité génnul daaf dafa am benn document bu mu lay jox pour won la ni diw yow la te sa numéro baa ngi nii document bi nii lay mel boo ci gisee turu nit ki moo ciy nekk ak numéro boo xam ne mooy numéro immatriculation daaf dafay wane ne kii moo ngi ci suñu état civil kii xam nañu ko hmm. doomu diw la ak diw mooy document d'immatriculation euh, du beneen document boo xam ne mën nañ ko wane donc service su daaf moo ngi koy joxe te ñoom fu ñu toll nii tembe ñoo ngi fexe ba ñu mën ko décentraliser bu boobaa du fa du soxla nit koo xam ne sori na biir réew mi soxlaa ñëw fii ba Dakar dañu ministre de l'intérieur jël na ndogal may nit ñi ñu mën a déplacé wu ci sous préfecture ya ak ca préfecture yi ñooñu am document bi waaw boo yorewee sa récépissé ñëw tamit balaa ñu koy jox dañuy xool ci liste démarchement bi ndax yaa ngi fa mhm. ñu génnee sa numéro parce que sa numéro euh, d'identité moo ngi ca mhm. ñu génnee la numéro boobu tappal la ko mu wóor ne diw la te moo ngi ci bureau sangam moo ngi ci list démarchement bi ministre de l'intérieur dafa ni autorité administrative yi dès l'instant que kii nii récépissé mayu ko mu xam ban mooy bureau de vote am mais mën na ko may moom mu xam xëy na fan mooy centre de vote am na ngeen fexe taf liste électeurs yi ci centre de vote yi may citoyen bi au lieu que muy rang ba egg mu mën a rek vérifier ban mooy bureau affiche ci buntu centre ñoom jot nañu instruction préfet yi ak sous préfet yi ci mën ñu mën a taf loolu mhm. te ñoo ngi ciy xar seen tànku tubéy ñu dem ca parce Parcelles Assainies foofee nag lu sorewul dara mairie ba fa la ñuy jëlee carte d'identité yi waaye ñu bëri ci ay sénégalais yu fa xëyoon tey daanaka dañoo ñibbi loxo yi neen mujj ñoo jot ah, seeni i carte d'identité mu nekk mbir moo xamante ne ñaawlu nañ ko lool jàpp nag ni par parloo am na ah, ci liggéey bi sàkku ci kilifa yi ñu taxaw ci laajte ñuy yegg si ci ba suppa wote gi dañ ci ànd ak ay satupay maa ñaari fan nag dong moo des balaa élection législative yile ba tey am ñoo xamante ne jotuñu seen carte d'électeur fii ci Parcelles Assainies ñu ngi leen di delloowaat ni seeni ay récépissé bàcc mbay nag moom xolam jeex na lool. bu ñu ñëwee dañ ñu naan génnagul génnagul man baagante naa fi presque dix fois saa bu ma ñëwee rek génnul génnul man nag je crois pas que ne récépissé yi mën nañ ci war a mën a voter parce que am na yenn am na nit yu nga xamante ne dañuy ñëw dañuy ci koñ yi di laajte récépissé nit yi pour euh, pour pour essayer pour récupérer seen carte d'identité yi léegi loolu noonu tamit est-ce que ñun mën nañ koo euh, mën nañ jël récépissé ne dañ koy voter alors que nit ñi ñu ngi dugg ci kër yi pour laajte récépissé yi. Maimouna Dieng moom nag nee na dootu fi dellu seeti di jël seeti carte directeur am. sonn ci suba be léegi maa ngi fi mun maa jot sama dandi te saa ma ñëwee ñu ne ma génnul damaa sonn damaa ngi ñibbi. d'accord man nga fi ñëw euh, depuis ci suba depuis 10 heures laa fi ñëwaat ba delluwaat léegi laa fi ñëw maa ngi nii damaa sonn. léegi ñoom bi ñu leen laajee lan lañ la wax. dañ ne nañ taxaw rek taxaw ba jamale ko kañ damay dem julli ji àjjuma. d'accord da nga ne dellu man kay dootuma dellu si saa bu génnee rek baax na nooy def ba voté ah, su ma buggee woote ma yóbbu li wala ma yóbbu bu màgget bi. ñu bëri nag fii ci parcelle Parcelles yi nar ñu woote ak seen ay carte d'électeur bu ñu sukkandiku si ñi nga xamante ne jot nañu waxtaan ak ñoom. Aïssatou Paye ca euh, Fatick téeméer boo jël juróom fukki ak ñeent ñoom jot nañu seen carte d'identité biométrique bu ñu sukkandikoo ci kilifay euh, gox ba loolee nag ñu ne distribution bi am na si jàmm ak salaam maanaam gisuñu fa benn jafe-jafe dañ ànd ak suñuy envoyé spéciaux foofule ca Fatick di Pape Ñing ak Thierno Laurent Mendy. ay waxtu yu néew rek ñoo des ñu amal jongante yi nga xam ne moo jëm ci ñu fal ñay nekk ci péncu ndaw réew mi lu yées junni ak juróom-ñaari téeméer ci ay carte ñoom ñoo nekk ci commission bu mag bi nekk fii ci Fatick nit ñu bëri seetlu leen fa ndax téeméer boo jël juróom-ñeent fukki nit ñi jël si nañ seeni carte biométrique foofu ca bërëb ba. ñu ngi jot jot ñaar fukki ñaar junni carte ak juróomi junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari carte li ñu joxe ci carte yi def na eh, ñaar fukki junni carte. ak ñeent ñu ngi dese eh, junni carte ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñett. moo tax euh, on s'est dit que peut-être euh, fii ak suba peut-être mën nañ ne ci téeméer kart bi ñu jot juróom-ñeent fukk yi mbaa juróom-ñeent fukk ak juróom yëpp dina fekk distribué nañ ko. ay commission yoo xam ne dañuy dem ci dëkk dëkkaan yi loolu la defoon. loolu tax ba jël carte gi daal di yomb yeneen yi ci des dinañ ko joxe sax bi ci jouru élection bi. bi amul benn jafe parce que pré bu mu kër augmenté commission yi commission yi dugg ci àll bi di fekk nit ñi. yii dugg ci quartier di fekk nit ñi alors euh, carte yi joxe nañ ko bu baax a baax a président bu commission bi ñu joxee carte yi moom jàppale ne électeurs yu bëri ñoom duñu wote ak lii di récépissé waaye kii di préfet bu dëkk ba nee na dina fexe amal sensibilisation bu mag ci wàll woowu. sur ce plan la xam naa il faut ne nécessairement benn plan de communication. pour que électeurs yi mën a xam euh, yan disposition yu bees lañu ñu war jël. récépissé yi du du bëri ñi ko wootee Fatick moom. ci région bu Fatick rawatina ci commune bi jafe-jafe yi ñuy dégg nag ci yeneen dëkk yi nga xam ne moo am ci wàllum jëlum carte wala déet ñoom fi mu toll nii amuñ ci benn jafe-jafe. yegsi nañu ci suñu rubrique moi député tey nag suñu nattango mi ñu teewal ca Jolof di Modou Mbaye dajeek euh, ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Fatou Guissé di coordonnatrice mouvement fekkee ma ci boole foofe euh, ca Linguère mu bokk nag ci coalition benn Bokk Yaakaar euh, moom it wax na bëgg-bëggam dañu koy teewlu. man la Ndeye Fatou Guissé di de développement. ñu investir mi ci liste benn bokk yaakaar 30e position ci liste nationale. Ndeye Fatou Guissé juddoo ci Daara Jolof muy fu mu màggee di tamit fu mu amalee ay études primaires am laata muy def formation jëm ci wàllu secrétariat. waaw maa ngi juddoo Daara Jolof maa ngi jàngee nag fii ci école primaire Maguette Ndiaye fi laa defee CI ba CM2 ma am sama entrée en sixième ma dem à Linguère bi ma demee Linguère ci laa fa defee sixième ba troisième. fa la afee amee sama brevet bi ma amee sama brevet ci laa fi jógee daal di dem ndakaar def fa seconde mais bi ma defee seconde par la suite ma xool na vraiment mbirum secrétaire daf ma neex ci laa dem Carter def fa deux ans de formation secrétariat. ci atu 2000 mu dugg ci politique. bi ma dugg ci politique presque 2000 la moo ma tax a dugg ci politique mais li ma tax dugg ci politique mooy que dama naan toujours man politique bi dama koy indi deuxième position li tax ma di ko indi deuxième position mooy que ne askan wi moo ñu ñor ñun dañoo war a mën a fexe ba ñuy xool nit ñi nu leen di xiirtalee ci mbirum développement. bëgg-bëggam bis bu bokkee ci treizième législature bi mooy teewal fa askan wi. sama xeex bi gën a mag tey ci assemblée nationale mooy que ne li nit ñuy wax rek xam nga du ñun ñooy dem di indi mais li ñu man askan wi am seeni problème wax ñu ko. ñu dem assemblée à l'Assemblée nationale toog fa poser le problème. coordonnatrice départementale bu mouvement fekkee ma ci boole moom am na boroom kër. am naa boroom kër mu ngi dëkk mbuur may lancer un appel tamit waa Mbour ñu di ko wax maam Thierno Diakhaté ku ko xamul tam dégg nga ko ci Mbour. am naa njaboot am naa ñetti doom macha allah benn ku góor ku mag ñeneen ci ay jumeaux lañu ñu ngi am France di jàng. beneen rubrique di euh, sénégalais lambda ay campagne Maimouna Ndiaye demal ñu ca plage bu Ngor fekk fa ñaar fukki maître nageur ñoom nag euh, li leen yitteel moo di am kayit yu baax ci fi ñuy euh, liggéeyee ndax bu ñu xoolee foofu ñu ne seen patron képp moo fa am contrat bu baax bu fu weesoo kooku ñoom kenn amu ci daanaka kayit gu jaar yoon ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def ñu sàkku nag ci député yi ñëw sëgg ci seen i jafe-jafe ñu teewlu ko moom Maimouna Ndiaye. nekkal fi askan wi ci péncum ndaw réew mi maître nageur bi loolu rek lay dénk ñi nga xam ni ñoo fi nar a nekk député. ay député lañ bëgg doon ñoom mais surtout aussi boo laa bëgg doon député pour man li la gën a mooy war a doon intérêt population bi d'abord intérêt population bi bokk na si certes nga xam lu ñuy dund circonstances yi ak jafe-jafe yi nga wax laaj leen ko bu suba bu ñu leen nommé nga mën a dox seen. ay bëgg-bëgg. ay dige yoo xam ni bu ñu demee ba ca biir du ñu gis dara maître nageur bi nee na bëggatuñu loolu. di leen ñaan rek ñoom bu fekkee dañu promettre dara quelque chose aussi ñu jëm ko respecté parce que askan wi tamit ñun je me population bi dof fu ñu dof la ñu donc. certes am na ñoo xam ne sax duñu déplacé pour voter ji parce que dañ naan la même buñ bu majorité bi aussi bu ñeneen ñëwee la même chose lay doonaan rek certes li si ëpp ay promesse rek lay doon te honnêtement askan wi actuellement nii soxla nañ loo xam ne wax dëgg yàlla lu leer la quoi. soppi doxalin liggéey yi ñu jëmmal ko li jëm ci njëgum dund bi ñu wàññi ko bu baax ki nga xam ni moo yore kaaraange plage bu Ngor mu ngi fàttali. li ñu war wàññi bari na sart war nañu wàññi courant bi war nañu wàññi ndox bi war nañu wàññi. nit yu ñu fi teg ñu duppee leen maître nageur ci plage bu liggéeykat yi nee nañu député yi waruñu rek ñëw di fi toogal seen bopp jot na nag ñu sëgg ci seen mbir ndax kat ba léegi amuñu dara lu wóor. mu nga ko jaajëfal ko moom a Ndiaye yéen it naka noonu ci teewlu bi fii la ñeem ak yéen ci xibaar yi euh, fii léegi simili yu néew Leya Sukeyna Ndiaye dina fi teew xibaar yi ci français lay doon ñu ñaanal leen guddi jàmm ak programme bu Télé Futurs Médias